ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جمعا توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تضلنا بمعصيتك اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان الكامل اللهم لا تفضحنا يوم القيامة اللهم نجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل في قلوبنا نوراً وفي لساننا نورا وفي بصرنا نورا واجعل من خلفنا نورا ومن أمامنا نورا اللهم أعطنا نورا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رزقا واسعا نصون به وجوهنا عن التعود لسؤال خلقك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الحمد لله الذي لم يجعل رزقي في يد غيره اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف الطف بنا يا لطيف يا عليم يا قدير اللهم لك الحمد حمدا دائما عند كل طرفة عين ونفس نفس وتنفس نفس اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك Rabbi!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 وعادوا إلى منى للمبيت ورمي ورمي الجمرات الله أكبر أدر ما أراقوا محمدا عبده ورسوله أكمل الخلق وأفضل البريات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر على الأرض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 ɓorlorɗe mana fewde allah mone gorgorlu en jublu ci yalla e hadawiuji moɗon ci sen addi e ci sen xarit tabaski gande koy ngeen xam ne wono mana ha joni layya mone xarum tabaski ene waɗi sarɗiyeji mone dafa am ay sart nag sardi gadono o mais sati bu ndiek bi mana nde yettoto mana ha joni hitande namat at wono ko teska e sarya lol lañ wax ci lol lañ gëna bëgg ci sarya so tawi ko koto banggue mana ha joni gelodi fekke nak gelem la ma daña duubi joy dana am juróomi at mone xaar wala bëy ɗum ma daña hitande dana am at ɗum koy sarɗiji he je ci sarti la bok a sarɗi goɗɗo o bi laatoto dammowol ngol balaa nga ko balaa nga ko rendi ina taw ina hisi fekk na mucc na ci bépp ayib ayibaji fof ayibi yëpp ɗi ngannduɗa ina haɗa ɗum yonde mu yi nga xam ne ne xante na ko tere mat ko wayno mana lajowol mu mel ni xar muy soox ɗum jeyaka heen loolu bokku ci taw ina feññini lajren mum wa fekk fekk sa kii bi muy soox bi muy soox feeñ na lool lool lool e ñaw ngol mu ne ak feebar ɗokkungol ak benn bët E, mana ha joni e, aja fa'u mana poñgol ak mu yooy wow kon mel ni man mo ganduɗa ala ɓellere nga xam ne amul dara ci gerees ɗiɗo e enen ndente mu ne yëpp neni ko moytu mu mu jox jox kenn ndigal ne ko rendil ma kono kanko ne yo tawtare ɗo nana taxaw fa ñuy na fekk fa ñuy rende kanko kirsowo o moom muy rendi o wiya bismillahi mu ne bismillahi allahu akbar allahu akbar allahumma inna hadha minka wa ilayka ɗum ɗo koye ma ummi koye ma fayi mu ne yàlla lii ci man la jóge ci yow lay dellu koye ma ummi ci yow la jóge ñëw ci man te ci yow lay delluwaat loolu mooy àqu rend bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin amin lima ughliqa wal khatim lima amin nasir al haqq bil haqq amin wa hadi ila siratika al mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim salatan taftahu lana biha abwab ar rida wa taysir wa ta'alluq biha anna abwab as sarr wa taysir ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ami joxon nañ ma ndigal nañu sante maire ci taxawaayam ci julli gi taxaw ma na ci lu bari kon ñu koy ñaanal yalla Yalla ñu ko yalla fayal di sante kalifay dekk bi imam yeb ak délégué de quartier yi ñu ngi ñaanal ñepp yalla imam neena yalla ñu fekk de gene déwén neena bal na ñepp ak na ko ñëpp baal àq ma ni na ma man ma fi gëna bari ak wa ngeen jéggañu jëf waaw ñu sant suñu borom rek sant suñu waajur yi sant kilifa yi fi nekk yépp ah ndax comme ni nga ko waxee weeru koor bi moom xawoon na gën a metti ba tabaski korité bi jot ñoo daje fii pour julli suñu borom suñu mayee nag ñu daje si tabaski bi julli dañ koy sant di koy ñaan mu gën ñoo dolli euh, nu mu jëti euh, euh, wér-gu-yaram ndax mbas mi fi nekk mu jëlee ko fii ndax moom moo ko indi moom moo ko na yóbbu di nuyu population Dalifort bu baax a baax di leen sant di leen gërëm seen taxawaay bi taxawaay si fànn yëpp.

si suñu comportement li ñuy wax geste barrière yi ñu euh, moytu distance yu jege yi entre ñun ñu moytu yenn dajé yi nga xam vraiment mën na ñàkk et eh, mën na mën na mën na ñàkk laa bëgg wax donc euh, loolu daal laa bëgg a parce que fu mu nekk nii réew mi yëpp dafa taxaw ndam mas